aousubillah min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi dellu siwaat nañ fii ci sunu jataay bi ñuy amale ci sunu site bi ñuy wax 24actu ñu koy amal ayu bis gu ci waxtu wi dellu siwaat incha allah rabbi ci émission bi ñu tudde madinatu ilmi tey nag ñu fas yéene dikk ak yéen ginnaaw bu leen sante bu baax a baax gërëm leen rawatina ñu nekk ci réew mi ak ñu bitim réew ak ñi nga xam ne ñu ngi topp jataay bi di ko bàyyi xel yan na leen yàlla defal lu faj seeni aajo te yàlla jéggal leen seeni bàkkaar te jéggal nu ko te yàlla jubbantil sunu kàddu ba li ñuy wax lépp mu doon aw yiw tey dañoo bëggoon a dikk waxtaane ci wàllu iñaan iñaan iñaan baat bi dafa doon baat boo xamante ni euh, ku nekk xam na ne du baat boo xamante ni baatu bu nuy taggaate la waaye baat bi buñ ko doon wax dañuy wax ne baatu gàcceel la wala baatu xas wala baatu koo xam ne ku doye di la ku doye di mooy moom la iñaan di nekk ci yow iñaan mooy ki nga xam ne li yàlla def ci jëmmi diw sàngam loolu daf koo naqari daf koo naqari loola nag am pexeem dana wax ne bakkaar yépp bàkkaar bi nga xam ne bànneex dina ca am iñaan daf caa bokkul moom nit ki dina mooy yàlla am ci bànneex dina njaalu ak jigéen muy mooy yàlla mu am ci bànneex waaye iñaan moom boo ko defee ab bàkkaar la waaye boo noppi yow doo ci am bànneex sa xol moo ciy dagge te yonent bi salaahu salaam dafa wax ne iñaan ni sawara di lakke di lakke am mat noonu lay lakke ab xol lay lakke ab jëf maanaam ah, ni nga xam ne ni la sawara di lakk am matt ba mu jeex ba mujj doon ab doom noonu la iñaan di def noon lay def ab xol borom xol bu iñaan doo ko gis mukk kanamam du belli du belli maanaam foo ko gis kanamam du belli te li kanamam di ñàkk belli xolam moo ko gën a tëju xol bi dafay tëju ba nga xam ne li ñu wax ne xatamallaahu ala qulubihim euh, noonu la xolam di def xol boo xamante ni dafay xat bu déggee kàddu gu naqare gu neex ci yow mu mer bu déggee ñu lay tàgg mu mer bu gisee nga yokk dara ci sa wàllu àdduna mu mer li koy bégloo daal moom bégloo mooy toujours mooy mu gis la nga torox ngay deltu ginnaaw te fekk ne moom li mu xamul mooy dafa yorut mbir yi mbiru sa mbiri avancé ak sa mbiru deltu ginnaaw ak sa mbiru yi àdduna ak sa mbiru àllaax yoru ci dara donte bu fekkoon ne sa patron la moo la jël ci kii bi na xam ne loolu yàllaa ko jaarale ci moom waaye du moom du mooy moo lay jariñ tey gisante nan bu lu baree baree bari nit di liggéey ci béréb nit jikki-jikki ne ko dàq naa la wala fexe ba xeex ko ba jëlee ko ca place ba ñu toog ab diir bu ndaw far yàlla gën koo jox place bu gën booba bu gën booba loolu jàpp naa ne mën naa cee jël benn exemple rek ñaari exemple wala ñett xam ngeen ni kii nekk président bi de tey di Macky Sall jàpp naa ne ñun ñëpp fàtte wuñu ne fii fële nga xam ne moo di assemblée ba dañ ko faa xeexoon jëlee ko fa dàq ko ci gouvernement bi tey jii jàpp naa ne fële ci assemblée ka fa nekk maanaam moom mooy mooy moo fay dogal moom moo fa teg ka fa nekk far waxuma la mu teg ko fa dong mu mu doy soxla mu doy tiitar ci moom waaye moom mi moo mujj jiite réew mi. réew mi ci ba loxoom la nekk fi mu toll lu ko neex te biñ koy xeex bañoon ba xañoon ko ndombay tànkam ak yooyu xañoon ko li mu amoon loolu moo taxoon ñu xeex ko jàpp naa ne kon mbir yi nekkut ci loxoy nit waaye ci loxoy yàlla la nekk moo tax iñaan <coughs> am na ñu bari ñu koy wolof yi dañuy wax ne iñaan dafa tardé bu nu dellu siwaatee ci loolu exemple yooyu ñuy joxewaat mën na noo joxewaat fii xanaa keneen ki ci des xam ngeen ko bu baax ku ñuy wax songo jàpp naa ne dañ ko xeexoon moom tamit jële ko ci palaasam bi doon liggéeyee waaye jàpp naa ne tey yàlla dimbali ko ba ensemble bi ci réew mi la nas ak di nocc mu am ca kàddu di wax bu yàggul rek jàpp naa ne gis ngeen ko mu bokkoon ci ñi doon raaj réew mi te bokkoon ci ñi ci nit ñi gën a xam kon mbiri yàlla iñaan xañul nit dara far danga koy yokk sax da iñaane nit ba far yokk ko nda jàpp naa ne dàq googu ñu ko dàqoon moom foofu jële ko fa tax na yàlla def ko ab député yàlla dem ba muy xëccoo réew mi bi muy xëccoo réew ñin gënoon a tiital ne ak ni nit ñi gënoon a ja jàpp na mooy jël réew mi ci la bokkoon kon nit ki yenn saay mu xeex nit fekk na daf koy yokk moo tax nit ku iñaan sa xel du dal te fekk na yow li ngay def sax da ngay dooleel nit te fekk na doo ko yëg te iñaan amul benn njariñ alxuraan nee na yowma yowma yowma laa yanfaxu maalu wala banoon ila man xattalaahu bi xalbin salim nee na fële ci àllaaxira wala fële amul lu fay jariñ lu du doom du xaalis du dara xol bu rafet rek xol bu la moo tax ñi nga xam ne seeni xol set na ñoom waxtu wu nekk bu nu ñàkkoon bu gën a ñàkk ci àdduna bi seen xol day féex ndax li koy féexal mooy amunu dara lu ñuy iñaane nit xam nga nit ki mën naa am lu lu jeex am wërsëg wu bari am alal ju bari waaye du féex dund gu baax sax du ko dund waa ji nga gis ko yorut dara buy dox sax day koyang koyang waaye da ngay gis ni féexte gi muy am li ko waral mooy xolam da ci wut kenn lu bon kon nit ki te wolof yi dañuy wax ne yéene néeg la borom a ciy fanaan néew na lool nit yéene nit dara lu baax te lu baax loolu ko ñëw ci yow néew na lool nga yéene lu bon nit loola waññeeku ñëw ci yow sëñ tubaa daf koy wax daf na yéene euh, boo yéenee nit lu baax day dem ca moom xool ko bu demee ci nit ka nga ko yéene bu demee xool gis ne mën na faa nekk mu tong fa nekk fa su fekkee mënu faa nekk day delsi ci yow mi ko yéene woon bu dee lu bon nga ko yéene bu demee xool lu bon li fu mu war a nekk ci waa ji mu xool ne gis ne mënta nekk ci waa day delsiwaat ci yow kon nit ki ne yéene lu baax te yonent bi salaa salaam dafa wax ne jikko yi jikko ji ci gën a bon mooy jikko yi iñaan ndax iñaan li tax mu bon mooy dangay ngay dogalub yàlla bi nga bëgg ne du am li yàlla dogal te loolu jaam lott na ci lool ci li yàlla dogal mu ne loolu du am te néew na lool nga iñaane nit te gisoo mu avancé ci sa kanam ndax yàlla mooy tërale mbir yi noonu mooy wan ne le te iñaan mooy ki nga xeeb fi mu toll nit di nga xeeb nit te wala fi dañ koy wax koo xeeb mu yeb la lam lay yebe mooy day xam ne jikko ju baax nekkut ci yow moo tax nit ki xolam dafa war a set tey boo xeexoon man mii boo ma xeexoon ne dama dégg diw sàngam mu am nàngam wala daa nekk ci tele sàngam wala daa nekk ci site sàngam naa ko xeex mu jóge bu ma fi jógee yàlla mën na maa ubbil feneen bunt bu gën fi nga ma doon xeexee te yow mi ma doon xeex sax mën naa am yow amalu la benn njariñ ndax yow du yàgg ba nga nekk fa du yàgg ba nga ñëw fa kon nit ki na dalal xelam te xam ne mbir yépp ci mbir yàlla ci loxol yàlla la nekk nit na seet li mu yéene boppam mu yéene ko boppam mu yéen li mu yéene boppam boppam mu yéene ko ñëpp loolu yonent bi salaa salaam dafa wax ne kenn ci yéen ngëmam du mat lu dul li mu yéene boppam daf ko yéene li mu yéene boppam daf ko yéene naw moroomam kon loolu day wane ne kon ni nu wax ci journaliste nit ki nga xam ne journaliste mooy métier muy bind di bind benn phrase wala muy def papier wala muy def benn élément lin ko digal dañ ne ko booy def élément boobu saa boo bindee bu fekkee lu rafet nga bëgg a bind wala lu ñaaw saa boo bindee ba noppi na nga co teg sa turu yaay bu dee jigéen la bu fekkee rafet na ci sa yaay bindal ko keneen bu fekkee góor la nga bëgg a bindal góor xoolal ba xam boo ko bindaloon sa papa dinaa rafet wala déet bu fekkee rafetul ci sa yaay rafetul ci sa papa boobaa bu yóbbu nit ki noonu la war di jële exemple yi muy jël dana wax ne euh, yonent bi salaa salaam am koo xam daa masoon na dikk di mooy ku bëggoon affaire mooy dikk ci yonent bi ne man damaa bëggoon nga ubbil ma bunt boo xam ne damay man di jaxasoog jigéen di mooy yonent bi ne ko ndax bëgg nga ku def sa yaay mu ne ko déedéet mu ne ko ndax bëgg nga ku ko def sa sœur mu ne déedéet ndax bëgg nga ku def sa tànt mu ne déedéet mu ne ko nit ñi noonu lan ko bañe waaye loolu li nga ciy jàng mooy nit ki li nga ko yéene ak li nga bëgg ci papaam wala nga yéene ko ci waajuram yow na nga xool ba xam bu doon sa waajur yéene nga ko la déet ndax nit ñi am na ni tànt am ay mag am ay frère am ay tànta moo tax nit ki liy defar xolam dëgg-dëgg mooy mu tàggatu moo doonte day ci ngistal di wane ne dafa bëgg nit te bëgg ko sax loolu dina ko jariñ maanaam wane ne foo taseeg seexu naa ne kon kone ko dama laa bëgg fekk bëggoo ko loola dana dindi moom ak noonoo seen diggante waaye la di dëgg dëgg àqiqa mooy nga ëmbal ko yiw wi nga ëmbal sa bopp ndax ginnaaw bi muy ñëw tàgguwu la te buy dem mënoo ci dara te même boo fexe woon ba man ci dara sax bàkkaar bi nga ciy gàddoo jaru ko bàkkaar bi ngay gàddoo ndax am na ñoo xamante ni fi ñu toll dañuy faylu ci télé yi xasal ma diw sàngam faylu ci rajo yi xasal ma diw sàngam saagaal ma diw sàngam am ñoo xam ne ñoom duñ ko mën a muñ dañuy àgg ba ne la boo ma ko reyalee wala na nga fexe ba defal ma ko nàngam yooyu nag lu ci nekk ñàkk a defaru la xol bu defaruwut xol nag li koy defar mooy jàng alxuraan salaatu ala nabi li nga yéene sa bopp nga yéene ko ñëpp loolu boo ci saxee loo am doyloo ko bañ seet ku la ëpple seet na yàlla miy seddale moo séddalee mbir yi nii bu fekkoon ne mbiri doomu aadama la rek am caat du nekk ci kër ëpple fa doom ëpple fa ab taaw bàyyi doomam du ko ëpple dara kon nit ki ni nga xam ne bàyyi ëmb cofeel gi mu ëmbal doomam yàlla ëmbal nu cofeel gu ëpp loolu yonent bi salaa salaam mas naa gis doom jiy jooy mu ne leen kee xanaa yaayam bëgg na ko yërëm na ko mu ne ko waaw ñu ne ko mu ne leen ni ma yërëme sama jaam moo gën a kawe nii doom ji yaay ji yërëme doomam kon nit ñi na leen delloo si waat suñu xel daray àdduna jarul dara sëñ sàmbay mu waax mi danaan wax ne ñett jarul ñett tayel jarul ñàkk bànneex jarul gàcce àdduna jarul àllaaxira nee na bi ci gën a dëgg mooy daray daray àdduna jarul daray àllaaxira kon nit ñi nan leen sellalaat sunu dundin ak sunu nekkin ndax nit ki moom néew na lool nga yéene ko loo xamante ni dellusiwut ci yow bari na looy dellusiwaat ci sa yow say problème di am loo lijjanti mu të say problème di jeex fekk ne li nga yéene nit ñi loolu la yàlla di delloosi néew na lool nit ñi nga yéene leen texe yéene leen mucc yéene leen jàmm te yàlla dindi loo kii yéene nit ñi jàmm yàlla daf ko koy dind te jàpp naa ne doy na sëkk lii ma wax ci Macky Sall wax ko ci Ousmane songo te loolu li tax ma tuddee ko nii mooy day actualité bu ñëpp xam Ousmane Sonko ban koy xeex di ko dàq ci palaasam jàpp naa ne foogu foogunu ne woon lii lay jur Macky Sall ban koy dàq ci palaasam di ko jëlee assemblée jàpp naa ne jàpp nu ne woon lii lay jur nit kii nag saa boo ko xeexee yàlla da lay wan ne la yow yoroo mbir yi man maa ko yor te moo ne di ñoom ñoo ñëpp bi ñu leen di xeex jàppoon na ne bu ñu jógee seen place nag nit ki moo tax bu ñu lay xeex di la bund xataal fenn jóge fa bàyyi leen ak yàlla diir bu ndaw yàlla wan ne la moo yore yëf yi waaye boo fa jëlee teg sa sa bakkan wane ne boo fi jógee dangay torox yow da ngaa gëmul yàlla nit bu la tëkkoo sax dana wax ne nit bu la tëkkoo ne la dinaa la rey wala di la tëkku ci dara dana wax ne ñaara ci nekk ki lay tëkku xamul yàlla yow mi nu tëkku nga ragal yow xamoo yàlla boo xamee yàlla ki la ne ko ay ci bismillah bu ñëpp jéemoon a fexe jéem laa jële sa bakkan te yàlla dogalu ko du la mënal dara bu la ñëpp bëggoon a sotti teraanga te yàlla naru ko kenn mënalu kon nit ki na wakkirlu ci yàlla te xam ne yàlla mooy lépp Ibrahima ba ko noonam yi di sànni ca ca sawara sax defe nga ne lu mat fukki at ak juróom benn wax na ne xamb nan ko sawara wa ci ay at waaye bi ñu sànnee sawara Ibrahima nu mu def yaa naaru kooni bardan wa salaama ala Ibrahima sawara sa dafa sedd ba mujj mel ni galaas kon mbokk yi ñun ñëpp nañ leen rafetaat xol yi te ñu dàq li nga xam ne mooy xolu iñaan ndax loolu day tardeel nit te bàkkaar la boo xamante ni day rey xol li nga xam ne ne la sawara di lakke matt ba mu nekk dóom noonu la iñaan di lakke ab xol ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla na yàlla defar suñuy xol fóotal nu ko ba lépp luy xeetu iñaan mu dàq ko ci ñun te yàlla defal na xol yu sell yi nga xam ne ëllëg yombal xiyaam alquran nee na mooy jëriñ foofa waaye du doom waaye du xaalis waaye xol bu sell rek moo fay jëriñ xol bu sell nag mooy nga i ñaan ci sa kanam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah seexu naa ma nekkoon ci maan bi soxna aw moo doon réaliser émission bi soxna Xadi Ñang moo ko doon monté ñu jox leen daje ci yeneen i jataay murtajan minnatun lana jari